kon ñu ngi yemoon ci bi na zeynaba zeyin ma zahar minni wa ma batana waj'alni wazar zeynabu moom nag ñu diggoon leen ni bu subaa danañ ci taxaw tuuti moom euh, benn saxaaba bu ñuy wax zeyd bu ñuy wax zeydu moo ko zeydu bnu xaarisata mu nekkoon borom këram yonent bi sax alayhi salaatu wasalaam moo ko ko mayoon zeynabu mi doomi bàjjan la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yoront bi jël ko may ko Zayd ibnu Xaarisata waaye bam ko koy may nag bu daa bañoon ndax lan ndax yii xew ci jamono rek mooy ne man ci yax bu rëy laa bokk te kii kat dafa am cosaanu jaam maanaam jamono ju njëkk ja ab jaam la woon jamono ju njëkk ja ab jaam la woon nga xam ne wax nañu sayyidatuna Xadijatu moo ko may yonent bi alayhi wasalaam mu ne ko nag man nag du ma bokk ci xuraysin bokk ci askanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu may may ab jaam waaye alquran wàcc ne wa ma kaana li muminin wala mumina isaa xada wa rasuluhu amran an takuna lahum alxiyara min amrihim balaa ya jeex daana yellut ci benn jullit bu góor wala bu jigéen yàlla ak yonentam jël seen dogal ba noppi ñu cay am lu ñuy seet sëy na bu daal di nangu bi alxuraan wàccee mu daal di nangu ndigalul yonante boobu waaye xam ngeen ne ab sëy moom tàmbali ba bu baaxul rek bu fekkee am na ay jafe-jafe rek ngir mu continuer dana jafe lool moom mii dafa nangu rek ngir tepp ngir topp ndigalul yonante bi alayhi salaatu wasalaam waaye lam doon bañ ba léegi mi ngi koy bañ yàlla dogal nag biñ nekk ci sëy bi léeg-léeg mu xas ko léeg-léeg mu ne ko jaam bi nga doon moom ndaw si moo koy wax xam nga ne yàllaa ko yoront bi ñoo ci jàpp waaye xam nga ne man jomm naa la di ko wax baat yu diis a diis a moom saxaaba bu baax boobu di saydu ibnu saydu ibnul xaarisata euh, saa yu saydu ñëwee ci yonante bi rek ne ko man daal sëy bi dama bëgg nga ñu arrêté ko ndax lii la may wax nangam yonante bi ne ko muñal bu toogaatee dama soxna si di ko wax la gën a ñàng mu daal di ñëwaat xam nga jigéen ñeeg seeni kàddu rek day xaw a saf lool di ko def di ko def ba mu yàgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam alxuraan ne ko yow day saydu mi bul fàtte ne yaa jàppoon ci loxoom fekk yonent bi dafa jàppoon ci loxo saydu dem ba ca euh, waa Makka ba ca kilifa ya fa mbooloo ma mu ni leen na ngeen seede ne saydu mii day bis ni def naa ko comme sama doom at taban nii muy adopté naa ko sama doom adoptif la euh, suñu borom subhaanahu wa taala ne ko lool nga def day mën naa indi ëllëg mën naa indi ay musiba ndax doom bu fekkee da nga koo adopté ne sama doom la nit ñi dañ naan sa doom la te kon su boobaa yi wàllu donnante dañ naan ah comme doomam la dana ko doon te normalement waru waru laa doon ndax bokku leen dara xëy na yaa ko doomoo waaye tamit xam nga doom bu amee soxna euh, bu xasee ba takk jigéen rek yow bàyyi ja mënutoo takk kooka nee na kon yaa su alxuraan ne ko ah damay bañ nag bu ëllëgee ku am doomi adoptif mu am soxna fase soxna sa bàyyi du ko mën a takk ndax dañ naan doomam la ak xeet yu mel noonu ngir bañ nag yooyu yëpp bañ a am ah, suñ borom indi beneen solution euh, su ko defee nag loolu alxuraan mi ngi koy nettali euh, di wax yonent bi naan ko saa yu sëy masaan ñëw di la soxna soxnaam si nga naan ko am si a alayka zawjak maanaam teel sa soxna si wa taqillaaha wa tux fi fi wa tux fi fi nafsik ma laahu mubdihi naka yonent ba ngay wax loolu Zeydu naan ko teel sa soxna si yàlla xama na la ne soxna si dana masa tas te soo tasee man yàlla may naa la ko man yàlla maa la ko may soxna léegi loolu nag dafa diis ci yonent bi lool ndax yàlla xamal na ko ne e, diggante sëy bii day du continuer dana tas waaye bis bu tasee ah yonent bi yàlla yow na nga takk na nga takk Zeynabu moom mu nekk sa soxna yonent bi nag loolu diis ci moom ndax comme kii yóbboon na ko ba ca nit ña ni leen mooy sama def naa ko ni sama doom bu wëlbatikoo ko takk soxnaam dañ naan Muhammad takk na doomi soxnaam loolu la doon wax moo tax alxuraan ne ko wa taxsa naasa wallahu axaqu an taxsahu yaa ngi bàyyi xel nit ñi nag te yàlla rek nga war a bàyyi xel moo tax falamaa xada zaydun minha wataran zawajnaakaha lu tax li kay laa yakuna ala almuminina xaraj fi azwaaji adiyaihim isa xadaw minhunna watara alxuraan ne ko damay bañ ëllëg ku ne diw def naa ko ni sama doom rek ñu bëgg koo def comme doomi original bëgg a donnante bëgg a xaraamanteeg yu bari naka loolu laay tegg li jullit ñi moo tax ba ko Seydou ba dee ba sëy ba mënta du continuer ñu tas ko nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne daana ndamoo ci soxna yonent bi ni leen man rek la ci yàlla maye yéen ñëpp dañ leen a labat seeni baay ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg mu takk leen waaye man nag yàlla si yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moo ma maye ci kàddu ko alxuraan ñu de ko jàng ba addunay tukki te du dañati euh, tey ñu war a tàmbalee ci bi malikin wa shafiiyi wa abi xanifatin wa ahmadin listajibi mu ne ko bi malikin maa ngi lay ñaan ci barkeb malik ibnu anas mooy sa mooy imaamu imaamu malik wa shafiiyi ak imaamu shafiiyi wa abi xanifatin ak eh, imaam abi xanifa wa ahmadin ak imaam ahmad ibnu anbal istajib yàlla na nga wuyu lii ñeel ma maa ngi lay ñaan ci barkeb ñooñu ñuy tudde al aima al arbaa mooy borom ñeenti ngir yooyu maa ngi lay ñaan ci seen barke nga nangu lépp loo xam ne moom laa la ñaan euh, Malik nag moo jàngal Shafii yu mi Shafii yu moo jàngal Abu Hanifata imam Ahmad ibnu bal nag ñoom ñëpp moo leen mag moom moo leen jiitu moo leen mag ñoom nag jotaay bi du may di ñëw ci ñoom ak seen mbir ndax ah, day xaw guddi lool mu ne ko bi jaahi jibril astajib su'ali wa ballighanni mablaxa rijaali bi jaahi jibril maa ngi lay ñaan ci barkeb jibril istajib yàlla na nga nangu su aali samay ñaan wa balligan ni ta nga yóbbu ma mablaxa rijaali ca eh, jotaayu góor góor yàlla yu mag ya wa balligan nii yéege ma mablaxa rijaali ca yéegukaayu góor yàlla yu mag ya maa ngi la ñaan ci barkeb Seydina Jibril mooy ki nga xam ne moo gën ci malaayika yi ginnaaw ba mu jógee ci ñeenti ñi nga xam ne mooy borom ñeenti ngiir yi mu daal di indi nag ñeenti ñi nga xam ne mooy ñeenti malaayika yi gën ci malaayika yépp maa la ñaan ci barke bi Seydina Jibril yàlla na nga nangu samay ñaan te yéege ma ci martaba ya gën a kawe mu ne ko bi jaahi mikaila habli niama wa nafi yajal misla xaysin karama bi jaahi mikaila maa ngi lay ñaan ci barke miikaa mikail habli yàlla na nga ma may niama ay xéewal wacxal te yàlla nanga def danga nga koy xaddam da nga jël waaw gi boole ko ak ijxal muy wacxal yàlla na nga def nafa ya sama njariñ mis la xaysin mu mel ne ab taw karaman ci tedd nga maa ngi la ñaan ci barkeb Mikail mi nga xam ne moom la ñu wax ne moo yor wàllu taw bi Jibril mooy dox yónnante suñu borom yi Mikail moo yor wàllu taw bi mu ne ko maa ngi lay ñaan yàlla na nga yokk samay xéewal mu mel ne ab taw xéewal yu sotti ko rek loolu lépp yàlla na nga ko def ngir sag baax mu ne ko bi jaahi israfila habli isma wal takfini ahwaala yawmil ghumma mu ne ko bi jaahi israfila maa ngi lay ñaan ci barkeb israfil te moom moo yor ngelaw li xëbli yàlla nag may isma ak kaaraange ak mucc ak kaaraange ko bàyyi ko fi yow wal takfi nii ta nga fegal ma ahwaala yawmil xumma tiiti bisub njàqare ba muy bisu ëllëg yowmal xiyam muy kon keneen ci malaayika yi muy ñett mu mel ne kon mu des kenn moo tax mu ne bijaahi ila kun lii bi tuula xayaati wakasa baxda raxil naka bi jaay asrail maa ngi la ñaan ci barke ba asrail te mooy malakul mawti moo wallu wàllu deegi moom la alxuraan doon wax naan qul yatawafaakum malakul mawti alladi wakkila bikum tuma ila rabbikum turjaun malakul mawti dana leen dikkal ndax moom la ñu dénk seen ruux yi ci kàttanul yàlla moo tax ma nag maa ngi la ñaan ci barke ba asrail moomu kon yàlla na nga nekk lii ñeel ma bi jamil ci aji rafet lépp lu rafet rek Euh, lu rafet rek mooy may nit ki jàmme adduna ak jàmme alaxira moo tax mun ne ko yàlla nag ma ko may tuula xayaati sama giirug dund waka saa naka noonu bax da raxiil ginnaaw boo ma fa bàyyi koo kon euh, ginnaaw bi may dund ak mooy faatu lépp yàlla nag may ay jëf yu rafet ndax su ma dajeeg yow achara il mii war a jël sama ruux mu fekk jëf yu rafet rek laa yore kon foofu la ñuy teg suñu baaraam ba beneen yoon incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.